ñaanal nañu président de la république premier tour premier tour premier tour. waaw noonu ci kaaba gi. Macky Sall waaw waaw noonu noonu ci kaaba gi premier tour rek.